kuy dégg ak mat rek ngay dégg kon ku xam loo xam lu ñu xam ci Cheikh Moustapha ak mat rek lañ xam ci moom. Cheikh Moustapha wal Moustapha warisal xadima bi sirrihi wa bi xilmihi wa bi ilmihi doomoo di baay fusum bi kawnil Moustapha xajaarakum xarsaarukum ahlihi ya ahla ngaay usum bi kawnil Mustafa xarjaarukum xarsaarukum ahlihi ya ahla ngaay yàlla dogal ma bëgg lool bëggil ko sore sore sore sore ko sopp lool te doyloo ko nit ni mënee suta waxtaan ci moom te waxoo ko cosaanam la waral loola. Modou Moustapha bu ngeen fexee ba yóbbu ma Touba li ngeen bëgg lépp am ngeen ko wàcce ngeen maa ci des. ay daan day moo daa tax góor a jël ñaari tànkam dër ko ci suuf te su ma dëree sama benn tànk te kama daan far far ma bu nguuru français gépp dajaloo woon bëgg koo yëngal duñ ca man dara te lii sama ñaari tànk nag laa ci dër. yii dox diggante nit ak ñut ñu ne diggante bi rafet na yëpp dox na seen diggante. ndax wolof dana rafetale digganteem ak mbokkam tudde ko doom bi ko fi bi ko sëñ bi wanee ginnaaw man dama koy jël def ko li ñuy wax badal ci ci ci naxaw waxee woon rek ne day mel ne ku sëpp ab puso ci géej la cay taq ko si ñëw ci ndox par rapport la cay des kenn xamul nu mu toll kon loo wax ci moom lu baax rek la ci des ko ëpp jegewu ko sax kon moo tax jafe wax ci moom jafe wax ci moom itam yomb ndax loo wax ci lu baax mi ci moom ndax Cheikh Amadou Moustapha mi ngi gane àdduna rek ci 1888 ci Daaru Salaam. sëñ leen woo ab jataay ci ak nekkam xamal leen ni leen ni liggéey bi lépp mat na li ci des rek mooy Kaabatullahi ci tuuba Cheikh Moustapha moo fondement jumaa ji ba mu weesu xaaj mu dem ba ko ëllëg. yaa nuy teral yaa nuy yërëm dinu may. Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul doon ki nga xam ne moo sos yoonu mu doonoon koo xam ne mission bi ko taxoon a ñëw mooy yeesal lislaam ak yëkkati ko naal bu rëy boobu taxoon na sunu borom tegoon ko natt yu rëy jaarale ko ci tubaab yi fi nekkoon waaye loolu yépp nag teewul sëriñ Tuuba sax ci di Abdullahi wa Xadimu rasuul mu tëraloon ay naal yu rëy ci lislaam ak ci yoonu murit yenn ya àgg na ci nekkam ci zaahir ba bi muy wuy ji boroomam ci atum 1927 mu dem bàyyil ko fi ay donoom ka njëkk ca doonam yooyu nag di ab xalifaam mooy cheikh Mouhamadul Moustapha kan mooy cheikh Mouhamadul Moustapha fan la ganee àdduna fan la askanoo nan la taxawoo sëriñ bi ci ak nekkam ci yan xalaat ak doxalin la yore woon yoonu murit ginnaaw bi ko sëriñ bi bàyyee ñan la àndaloon ci liggéey bu mag boobu ko sëriñ bi bàyyeel kañ la làqu ak fan la làqu nit nag mënee su ta waxtaan ci moom te waxoo ko cosaan la war a lool ndax sañu war da daa wax ne loola naqari jinni da ngaa xam ci bokkam waaye nit moom du nuru bokki jàmbur mukk koo gis ci adduna rek ay bokkam li nuru ca bokk yooyee ca la ko tànnal waajur wu jigéen wu doon jàmbaar yoo xamante ne ni adduna mën naa roy ci moom ngir ay taxawaayam soxna mi tëloo moomu soxna xari maam moo yaayam xari maam it aminta yàllaa ko jur aminta yàlla nag saa xewar faat ba ci bay baayam ah aminta yàlla moomoo ak amadou yàlla ñoo bokk ndey baay waaw aminta yàlla nag moom la joxoon suñ kokki njaga isa ji moo am fa samba aminta mu jur pend bi ndey sa yoon mbakki jalaw teg ci xarit maam ñoo bokk ndey ak baay mu jur amit loolu lañ sëñ Moussa. mu bokk woo xam ne nii làmb na maanaam mboolem xëy di baax yépp ndax ci tënk rek ak leeral Cheikh Modou Moustapha soxna Aminta Lo mi nga xamee ne mooy wajuram soxna Aminta Lo Tafsir Makhtar Binta Lo mooy wajuram Tafsir Makhtar Binta moomu it. ku ñu wax Binta Fall di way jërëm Binta Fall moom i ànd sekk xujja kumba mooy way jërëm nga xam ne Cheikh mu Cheikh ñaari maam yëpp bokk <laughs> fa Ahmadou ma def ta moom lañ tuddee Ahmadou Mokhtar bi yàlla jaaxaleel loola it pend bu ña doon lijjanti loola ba xëy toppatoo ko yor ko sëñ Tuubaa leer salaam ci la bokk moom Samba Gadda bàyyi sëñ Mor Dianda ma bàyyi sëñ Matar euh, sëñ Matar ma ne ma bàyyi sëñ Matar ñooñu ñoo ko toppatoo ba andi ko Daaru Salaam. al muridatu saadiqatu soxna Aminata Lo liggéeyal sëriñ bi ba mu gërëm ko doy na sëkk ci liggéeyam bu tedd bu sell ba ak ab cëram ci sëriñ bi. ñaan ga ñaan sëriñ bi ne ko may ma ma dem wuutu la nga àggale sab liggéey kon ku yàlla man a fab wuutale ko sëriñ bi rek ak nu mu mën a demee rek am nga cër ci yàlla. waajuram bu tedd ba sacrifice ba mu defoon ba leen sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ Cheikh Xadim dajalee moo ko soxna Awa Bousso ak soxna Aminata Lo ak moom te booba Cheikh Mouhamadou feeñ na Cheikh Mouhamadou Moustapha feeñ sëñ Baara feeñ. dañ leen sëñ tuwaaxoon ci tënk rek lii dégg ngeen ko ba tàyyi waaye ci tënk rek. moom da ca wax ne am na lu soxna aw bu sa wax waaye moom dafa wax ne maay dem ndax yow Cheikh Al kenn xalaatu la da ngay liggéey te sa liggéey noppeegut ndax Cheikh Amadou Moustapha mi ngi ne àdduna rek ci 1888 ci Daaru Salaam ndax gane gane àddunaam dafa dëppoog sëriñ bi am lu rëy loo xam ne doon na ko di ko wër bu yàgg dafa mel ni ak gën àdduna ci la yàlla te tawfeexi sëriñ bi mu gis barab boobee muy Tuubaa ginnaaw gane àdduna ga ci bokk yu seetlu yoo xamante ni moom ca la bàyyi ko di njaboot goo xamante ni daf leen tànn ndax kenn ku ne xam na sëriñ bi xam tam ni ko loolu ñore ba tax na lam doon wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu koo dal ci ak njabootam ne xat ustufe min xiyaarin ma ata ahadun minhum bima yuxjirul axyaara wal uzama muy tànneef yoo xamante ne ni kenn koo ci mën a duut baaraam ci ngor wala diine ju manqué ju am bi mu tollee ci jàng sëriñ Touba ko dalal jàng moo ko rakkam Cheikh Mahamadul Fadil ginnaaw bi sëriñ Daam Abdourahman Lo moo ko jàngal alxuraan ba mu mokkal mu jàng xam-xam ci ay baayam ku ci mel ni boroom daaru demoon na yit gànnaar ci jamono yi fi sëriñ bi nekkee jàngaat fa lu bari ci xam-xam yu wuute. bon nu ma tee a daal kenn waxu na waaye sëñ bi yéen a suba dibéer rek suba suba ak àllarba yóbbu nu maa sëñ Badou Sa sëñ Fall nu ñett loolu la suñu war a jimbi ko gi ci kër sëñ sooy ak suba lañ fa xëy suba teel mu ne damaa bëgg ngeen jublu ci lii seenub liggéey yéen alxuraan laa leen defal mooy seenub liggéey da ngeen ko nangoo nee na nu xoolante ree ne ko waaw mën a bu ko nangoo lu ngeen bëgg danaa leen ko defal tey jii ak bu ëllëgee bi moo ko dalal jàng fii ci kër sëñ Souhaïbou ñu tuddee ko daru Rahman mag ñi daan ko wooye Daaru Naar foofii la dale mook mbokkam mu baax ma Cheikh Mouhamad al Fadal ak sëñ Omar Galongal ñetti alooy xajar la daal di yëkkati teg ci suñu lépp àgg leen suuf nu àgg suuf moo noonu baa miim nu wax ak noonu ba muy yetti yoon mu ne leen ci xalaat dara bu leen ci tiit dara gaaw gee xam ak bañ gee fàtte nekkul ci yéen ci man la ne te danaa ko def ci yéen ñeen sëñ Tuubaa nu jàngal ban ci làmmiñu boppam ba sóoratu Yaasin loolu sëñ Tuubaa nu ko jàngal di ko tàggatoo sëriñ bi leen jàngalal boppam ba bi dem Mbàkke Bari moo leen yor di leen saytu wax nañ ñi sax bi ñuy dem àgg nañ ci sóoratu Yaasin demee Mbàkke Bari ci Jolof nattu bi agsi mu war a génn mu dénk leen mbokkam ma di maam Cerno Birahim mu taxawu leen àggale seen àllu ba yar leen ba muy bëgg a dem nag la woo maam Cerno ba ñu mën ko Omar mi daal ma ko jox Abdourahmane gone yii nag daañu ko fekk damay ànd na ñoom dem fii may bëgg a dem ci yéen yéenti weer képp laay fam loolu la waxe te loolu la suñ nekk lii nit ñaa ngi wax sax ci juróomi weer ak loolu la koy waxale waaye yéenti weer la ñoom wax laa laa gëm man loolu laa dund suñ fa lu wax loolu ci lam mi ñoom sañoon wax la kon dafay mel ni rek ci fukki atam fekk na mu wattu alxuraan ba bind ko bind nu sell sëñ Fallou daf daan wax ni ki ma joxe kum joxewul te joxul ak ki ma joxoon xam naa ci alxuraan loo xamut loolu nag dafa daan faral di ni itam ni suñ moo nu jàngal ban ni mu yar ni ban kon moo leen doon tarbiya moo leen doon jàngal di leen yar yar ñu itam ni ko sëriñ bi yare woon rek noonu la doon yare njàngum xam-xam it ci tënk rek mi ngi ko jàngee ci diggante maam Thierno ak sëñ Mor jaar ba sëriñ bi ñëw ci géej gi dem gànnaar maam Thierno dem gànnaar yóbbaale ko man rek suñu adivisi la te booba gànnaar dañuy métti métti métti métti dégg naa ko ci mag mu wóor mu ne booba gànnaar naqare na lool waaye sama soo bi gisee sëriñ bi rek la am cofeel gu rëy ci moom ba sàkku sax nga xam ne moo sàkku. ci des wax nañ ne itam bi nga xamee ne sëriñ bi ñëw na ñibbisi na te dem gànnaar dañ fa ànd ak maam Thierno maam Thierno da leen faa yóbbu am na ñu wax ne ba ñu fa nekkee ab diir ba war a ñibb te fekk na boobu sëriñ bi itam sàkku xam-xam rek moo taxoon ñu dem fa ndax sëriñ bi xam na ne barab booba barab la boo xam ne ay borom xam-xam dajane fa te ñëpp a ngi wal di ñëw ci moom boroom xam-xam yooyu kon jataay booba su ñu fa nekkee ku fa rot tey boroom xam-xam rek dana dana danañ mën a jaxasoog moom ba la ñu soxlaa tàng ca xeeti xam-xam yu wuute ca jamono yooyu ñu mën ko tàng. moo tax boo demee ci sëriñ Moussa Ka ngi wax ni mbaam Bàmba nga leen tarbiya fii Sarsara ak i jarraariya ni waa saara foofu ci gànnaar na fa mag ñu nekke woon rek noonu lañ fa nekke gànnaar itam doon dëkk bu jafe nekk ca jamono jooja ngir manque ndox ga ngir tàngoor wa ak désert bi xiif bi fa nekk waaye teewut ñoom ñu nekk fa ak sëñ bi foofu ci gànnaar dañoo boole liggéey ak jàng ndax wax nañ ne am na fi ab tokkoor boo xamante ni nii sëriñ bi dafa leen waxoon ni leen dama bëgg ngeen di ci xëy di ci yëngutu ndax bëgguma ngeen ñëw fii ci gànnaar ci désert bi ak tumuranke gu mett gi ba ñibbiwaat senegal yem ak ña ngeen fa bàyyi woon waaye mu defal leen ca lu kiimaane ni leen defal naa leen ci benn bis bu ngeen ci xëy dana mel ni ay bis ci yéen loolu loolu ak jagle la suñ tubaab leen fi ñeen fukki kéemil yoo xam ne da wañu muy ñeen fukki kéemil mu takk kaamil bi nag da koy yëkkati teg seen loxo sëñ Modou Moussa sëñ Fallu sëñ Massamba sëñ wax ne kaamil yi yéene seet nu ngeen ko nu ngeen koy bindee na ngeen tooloo la nag mu ngi ci bind ba àgg yéen dund te timis bu ñu jullee timis suñu sëlmalee dikk leen wuyu si ma bu ñu dikkee bar ci yi baraay la leen di jox bu ëllëgee mu ñëw mu jox leen bar ci loxoy peppum suuna bu ëllëgee mu ñëw mu jox leen bar ci loxoy daakaane ne leen lu ko dàq day xëy na mën naa am waaye fii ba mag li leen ci fagul ëpp na mu xel bu ñeen fukki kamit yooyu ak it lam leen ci wax du waxee rek foofee la ñuy tëg bi yow ba yàlla dogal ñi uh, samp kër foofee lañ leen ko defal fa jàll 1909 ñu soog a ànd nag dikk njaareem 10 11 12 13 mu ne leen nag dikk leen wuti ay àll yu bañ a sori Tuubaa tey liggéey bu wér di jaamu yàlla yéen a gor yi fa nekkal tey ànd di siyaare si ñoo moom a ànd ñëw ci jolof cëyeen jolof itam tarbiya ga lañ ci continuer ndax booba fekk na njàng ma fa tabaarakallaa la ci sëñ bi bëggoon suñ borom defal na ko ci ñu nekk foofa di di di liggéey ci li sëñ bi gën a bëgg muy bind alquran ak yeneen liggéey yoo xamante ne ni liggéeyu doole la benn boo xamante ni daañ ci ñiiblu wala nit ñi di ko def ñu toog di seetaan doobu amut sëñ Modou ci boppam wax na ni gori naa gori naa gayet takk naa am néeg fetañ na bayi ca tool ya loolu lépp ay taxawaay la dem na ba bu nekkee ci biir taalibe yi doo ko xàmme ndax sëqal gi mu sëqal bopp bi njañ li ak col gi doo xàmme ni kii doomi sëriñ bi la wax nañu sax sëriñ bi woo na ko benn bis laaj ko ni ko waaw lii nga def loo ci jublu mu ne ko bëgg gën a niru ab taalibe mëni su ko woon a xàmmee ak taalibe yi ba mu joon sax mu yor melaw taalibe wu ëpp ba bopp bi di sëq ba ma warloon ñam ñu koy tudde njañ ba sëriñ bi woo ko bis gis melawoo wii ne ko Mouhamadul Moustapha lii de am na ñu koy def waaye yow dafa am lu mën a tànnal mooy ngay jaamu yàlla ci sunna si yonent bi nga doon nituk sunna laataan na ci yow. ku sa fondement dëgëre noonu sa base dëgëre noonu nga jaar fa nga war a jaar ci alxuraan ja xam-xam ba tarbiya ba tarqiya tasfiya ba sëriñ bi sëriñ daam Abdourahmane maam Thierno maam Mamor Diarra ak gànnaar ga ci sëriñ Touba ndax moom si xam nga ne nga woon gànnaar sar sara daj fa lu doy waar ñu nga woon Ceyeen sonn fa lool son bokk feeñu doon Daaru Salaam kon jaar na fi mu war a jaar fépp. sa wàllam daa wax naan sama gémmiñ ci sëriñ bi mooy jur gi mu jur waaye day mel ni jur gi maanaam sëriñ bi doon gi doon koy jurem it li ko ñëpp di defal la ko defal kon day mel ni ak xéer la rek ak it waxi mubaalax nga xam ne day jotal rek waaye eh, eh, Cheikh Moustapha ak njuréelam googu sëriñ bi jur yàqalu ko dara ci li mu ko war a liggéeyal sëñ Fallu moo leen wax ne leen amut doom amutub jarbaat amut fakk nee na nag moom Sëriñ Fallu bi mu ñëwee njaareem dafa bind askay jox Sëriñ Tuubaa muy bay di siiw yooyu waaye nag euh, léeg-léeg ci lu bari loolu xam-xam nangu ko euh, mooy ginnaaw ñoom la ko waxandoo euh, ka bind ñëpp la jëlaleel engagement ndax sëñ bu mag bi bi muy tontu daf ne waaleykum waaleykum salaam yasurrukum wa yanfaukum wala yadurrukum abada loolu ku ne dugg na si biir noonu daal lañu ànde woon di bokk di bindandoo ay kaamil dëgg la nag jamono neexutoon bañ mën a bañ bokk fenn fu ñu nekkoon lépp waaye diggante yëpp taxutoon benn yoon umpante dox seen diggante gànnaar ak jolof lu ci nekk ay étape la yoo xam ne maanaam étape yi sëriñ bi jaar ci dundam nga xam ne bu ñu doon séddale ñi nekk ci ñi toppoon sëriñ bi ci ay murit dañuy wax ne ñi ñi nekkoon jolof wala ñi jiitu géej gi wala catégorie yooyu kon moom bi bi nekk Mauritanie ma nga bi sëñ nekk Jolof mi ngi fi bi muy ñëw njaareem mu ànd moom ñëw kon kooku tër bi sëriñ bi daan ko digal li muy digal Euh, taalibe yi di ko tere li muy tere taalibe yi noonu ko sëñ Abdou Lahad wax ne mboolem ko sëñ bi jur ñëw nga jaay njureel gi doonub taalibe mu di la diggal li muy digal taalibe kon noonee ni la defoon. muy sëñ Moussa bu ko sëñ Tuubaa jurut woon it cër bu fi waay di am dana ko am ndax da ko liggéey daa teel a dal ci tool bi te teel a dégg sëñ bi te amu fit am jom nangoo liggéey. loolu may na ko lu bare bare ndax moom ci boppam da daan wax ni lépp lu fi waay liggéey ba ba seex ba nga koy liggéey maag yow ko ànd ma ëppalee la nag njureel gi loola dana dana firndéw daal ni nañ dem ci curi ba mooy fañ daan yeew fas yi ñuy jox sëñ bi ni fas bu fa waay indi indi na fu ko gën nañ dem ci néeg ya néeg bu ko waay takkal takkal naa ko néeg bu ko nañ dem ca sàq ya sàq mu fo waay indi indi naa fu mu ko ëpp nañ dem ca kaamil ya kenn dàqu ma bind kenn gënu maa rafetle te kenn ëpp ma kaamil bind loola nag moo doon wan ni doon na liggéey